texte la boo xam ne ñun dañ koo àbbu ci koo xam ne da doon sant ay euh, internetam yi koy topp ci paasam moo xam page Facebook wala page YouTube wala sax groupe WhatsApp am mu ne ci loo xam dama leen ci wan ne lu ma bégal la nekk gi ngeen di nekk ci sama paas dama koy tiitaroo ne maa ngi sant képp koo xam ne boroom ruugu tee nga koo xam ne yaa ngi bokk ak ñun suñu paas bi ak liñ fi indi ci ay eh, ay nasuur ay nasr eh, nee na ñu ngi leen di sant cant gu jóge ci xool li tax ma àbbu ko mooy ñun ñi nga xam ne dañuy jéem a ndem na bi di defar benn xikma boo xam ne par bés lañ koy def di leen ko envoyé ngeen jox ko yitte jox ko jublu fonk ko di ci ñaan fu ngeen toll di ñu ci ñaanal te ñaan yi ñu koy gis jamono ju ne mu yegsi ci ñun waaye itam ñenn ñi di ñu ci woo ñenn ñi di ci jokkoog ñu ci geneen anam wax dëgg yàlla man maa amee woon pour sant leen ci at mu yees mi nga xam ne ci lañ dugg te seeg tey ñu nekk ci suñu xikma 984 ma di leen ci sant bu baax a baax ci xikma yi numéroté ndax xam nañ ne tàmbali nañ ko lu yàgg te daawuñu ko numéroté biñ demee ba ne nañ ko tàmm ñu ne ñu nañ koy numéroté nag. ak léegi ci lañ am 984 te lool lépp nit ñi di ko jox yitte di ko jox gëdd di ko déglu di ci sant di ci ñaan te man mu wóor ma ne kenn ku ne ci yéen wala boog ñu ëpp ci yéen lii ñu ci nam na bi jéem yéen ñu ko dàq fuuf waaye nag sunu boroom a leen ko tax di def yàlla na leen fayal boppam bu lool jàllee ñu indi ñaan goo xam ne dañ koy ñaanal ñépp ci at mu bees mi di ci boole sunu bopp di wax ne yàlla yàlla na nga ñu defal suba gii di suba at mu bees mi di bis bi ci njëkk muy suba yiw suba jàmm yàlla yàlla na nga ko feesalal jullit ñépp ak mbégte te it yàlla na yàlla defal ñu ci ay gaat nga yu rafet yi gaat nga woon yépp mu dëggu te yàlla def ñu ñuy ay santkat di ay gërëmkati yàlla tabaraka wa kon loolu lañu indi woon tey ci xikma ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu di leen wax nag déwénati di wax at mi yàlla na nekk atum jàmm atum salaam atum santé atum wér atum lépp loo xam ne luy xéewal la wala muy wërsëg ñu ngi sant ñépp wasalaamu aleykum wa rahmatullah